jëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou Serigne yàlla na fi yàgg lool te gën a wér Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou na fi a wér yaakaari teeg ëllëg yàlla na fi yàgg te wér tedd ki jërëjëf noo ngi lay santaat bu baax ci ndimbal lii nga nu defalati ak tawféex gi ba nu fekkee di sa gii nga boole nu ci man bokkaat ci di la sant itam ci kàddu gi nga nu ci joxaat ngir dimbileeti nu yokkaat sunu xam ci sëriñ bi te saa yu nu yokkoo xam mu yokk sunu taalibe te ñaar yooyu rek moom lañu yittewoo ak ay taalibe lañu te bëgg noo am lu dul ak taalibe te sunu taalibe googi bokk na ci li nu ciy dimbali xam-xam bii nga nu ciy defal ndax daf nuy niital yoon wi ba ñu gën a mën a xam fi ñuy teg jéegu yi kon noo ngi la koy sant bu baax a baax saa su nekk di nuyu bu baax itam mbokku taalibe yépp ñi nga xam ni noo ngi teew foofu yi ak ñi nga xam ni mboolem doomu aadama yépp muy mbokkum taalibe muy mbokkum jullit ak képp kuy nit koo xam ni yàlla dogal na yaa ngi ñuy topp ci internet bi ndax yëf yi en direct la kon ñoo ngi nuyu ñëpp di santaat sëriñ bi lool nag ci waxtaaneeti ko ndax waxtaane ko day sunu njariñ di yokkute it ci nun ay bokk ci sunu taalibe itam Serigne saliw mo ni nu deug deug ak taalibe moy bëgg Serigne bi ba yegg ci sopp ko tay jëf ci mom te fo tollu diko waxtane kon fo tollu diko waxtane dafa bokk ci gi kon dimbali gi nga nuy dimbali ba nuy sax ci diko waxtane mooy dimbali gi nga nuy dimbali ci sunu taalibe moo tax saa yu nu koy waxtaane dañuy yëgaat ak cant ci yow mi nu koy defloo ne nammati nga yokkaat nu ci sëriñ bi sëriñ Saaliwu nag ñi nuy waxtaane boobaak léegi te ci jub ni nu koy waxtaanee mooy di waxi jëfam di wax ay waxam di waxi mbiram te loolee lépp di feeñal jëmmam ji ci ak wéetam ci yërmandeem ci njariñam ci nun xéewalam yu rëy yi te loolee lépp di taktale rek li mu doon te kenn xamu ko looloo tax tolloon nanu ci di waxtaane jëfam yu rëy yii nga xam ni kat noonu kat xamuñu lépp waaye liñ jot a xama ko su néew mësunoo dégg baanu gis ku dégg mësunoo gis itam baanu gis ku gis jëf ju toll noonu ndax lu toll ni xasaayiti Serigne Touba yii ak li Serigne Touba doon nga xam ne kenn ku ne ci nun xamoo ko sax nag waaye li nga ci xam sax tax na nga xam ni Sëriñ Tubaa li mu doon mooy lépp mooy ki amul moroom Sëriñ Tubaa moom mii nag lu toll ni xasaa yitam yi nga xam ni xasaa yitam yi daa bokk ci jëmmam ji ndax ay waxam la te jëmmu ay waxam daa bokk ci jëmmam looloo waral alxuraanul karim boroom xam-xam yi ne bokk ci mbindeef yi ñu ni ana lu tax ñu ni waxi yàlla te ba nuy lii melo yàlla te melo yàlla daa bokk ci yàlla yàlla ji ba ñuy lim ay meloom boole woon nañ ci wax ak kiy wax yàlla mooy kàllaamun wa yalla moy mutakallimun ku jëmmi wax ji ci yalla la bok jëmmi ki wax itam yalla sun borom la lolo tax nak ñu boole ko ci melo yalla yi te lepp lu bok ci yalla day ak minde fi sifatun min sifatillah qasayit serigne touba yi nak atte bo bi mom la am ci serigne touba daa bokk ci sëriñ tubaa sëriñ tubaa gi moo tax doole yi ci sëriñ tubaa wane ak man-man yi mësunoo dégg benn mbind moo xam ni làq na man-man yooyu baa mu làq doole jooju loolu lu muy firi mooy jëmmi sëriñ tubaa ji moolul kenn tey kenn du moom looloo waral xas yi faaxat xasaa idal kiraam wali taquuru abadan xayral maraam moo tax daana waxal boppam ni sama xasaa yi di day ni mel dafa mel ni damay dog sama yàppu yaram di leen ko taajal kon moonu leeral ni xasaa itam yi ci jëmmi boppam ji la bokk looloo tax xasaayit ku dul sëriñ tubaa mënoo koo moom mënoo koo yàlloo itam danga nga ci jàng tey barkeelu rek tey jariñu waaye doo ko moom mukk lu rëyee noonu nag bu sëriñ saaliwu defee jëfam ju rëy jii moo tax mani mosunoo gis nun mosunoo dégg itam gisuñ ko gis gisuñ ku dégg jëf ju réye noonu ndax moom mi tànn ci biir xasaayit yooyu ma la wax ay bayit mu toll ci ab lim ba toll ci juróom-ñetti bayit daal wax sëriñ Béthio ni ko yii bayit mbub sëriñ Tubaa la yow nag jagleel nan la ko fépp foo toogati nanu ko fay bind bu ko defee mu tiim la loolu waral nga dem ba yegg ci fas ko def muy daw ci mbindum écran te fas nga ko yéene it mu law ki sa kër yépp kon rëyaayu jëf jooju lu mat di waxtaane la ndax waxtaani sëriñ Saaliwoo ndax xasaayiti sëriñ Tuubaa yi nee naa la boo xamee li mu doon wenn araf rek waxuma la sax bayit waxuma la sax benn baat waaye benn araf araf mooy lettre baat nag mooy mot waaye araf rek jomm na mbindéef di ko ca moom sëriñ tubaa rek a ko yeyoo kon bu sëriñ saaliwu waxuma araf waxuma baat waxuma bayit waaye mu jël ay bayit lim ko ba mu toll ni mu toll binduloo ko Abdallah Fahmi joyantil ko boppam ba lépp mag mel na mu ko bëggee mu ne ko yii bayit mbubb bi sëriñ tubaa la yow nag sëriñ Béthio jagleel nan la ko ba mu ko ko waxee itam digal ko mu di ko takk fu mu toog sëriñ Béthio fasanse daa tàmbalee jëfe ndigal la ci kanamu sëriñ Saliou ba àddina sépp yëpp ko fum mu mus toog ku ne xam na ne mbooloo fa toog waaye ma ngi ko fay bind ma ngi koy waxtaane itam di ki sant sëriñ Saliou ñépp di ko seere sëriñ bi gën leen koo seere kon loolu sëriñ Saliou lay wane bu ko defee kon loolu lañ tàmbali woon di ko waxtaanewaat ngir di ko ci sant moom sëriñ Saliou ndax nee naa leen woon mbubbum sëriñ tubaa saa su nekk nañuy fàttali ne mooy loo xam ne sëriñ tubaa rekk ko jagoo ku dul sëriñ tubaa itam mënatoo koo jagoo ndax daf ci wéet faw looloo tax ka ko sañ a jagleele da dul wuuteeg sëriñ tubaa mooy ka ko musa jagleel ku ko am waaye ka lu ko jagleel itam ba nga man koo jagoo doo ak sëriñ tubaa ndax foofu bu fa wuute amee wax ja day tuxu te waxi sëriñ tubaa du tuxu mukk wa innahu jahala ma katabtu wa ma katabtuhu wa ma kasabtu wala kama katabtuhu wa ma kasabtu lépp lu ma bind kon lépp lu ma wax ndax bind ay wax la na ngeen xam ni ni ma ko bindee ni ma ko waxee noonu yi rekk la demee te du tuxu mukk loolu la Sëriñ Tuubaa bind kon jooju waxam Sëriñ Saaliw moom la muy gën a firi rek mooy diggante Sëriñ Saaliw Sëriñ Tuubaa mi ko moom ak Sëriñ Béthio mi ko moomale ñàngale mu yees ci xamal nu ne duñu ay juug lépp lenn la feeñu waaye rek mooy wuute ndax sëñ Tuubaa ni muy doxee mooy tayam ju ne day gàccal démbam bu ko defee kon loolu mooy li nga xam ni damay def saa su nekk bala noo tàmbali ma waddee wax ko wax ji ba nu xam li ñuy waxtaane tolluwaay bi ak dayo bi li Serigne Saliou def te loolu jëfi Serigne Saliou te it buñ ko dee waxtaanee màggug Serigne Saliou gi lay wane sant ko it la doon ci noonu yooyu bayit nag jotoon nañ cee yeggale ñaari bayit jeexaloon nanu madda ilayya madadan li yuxlidu fataabati nafsu wataabal xaradu démb la jeexal itam madda ilayal waasiful munfaridu naylan bihi fii abadin anfaridu moom lañu nu daaneel démb mooy ñaareelu bayit wi wi nga xam ni ci mbubb bi sëriñ tubaa yi la kudd sëriñ tubaa ko mu jagleel ko nag sëriñ bi na ngeen xam ni itam bu sëriñ tubaa waxee mbubb ca fam ko waxe woon nam ko firee woon ci jëmmam ci sa jooja jamono ba mu ko moomalee sëriñ bi itam bul jàpp ne day ñëwaat rek di def loola mu fa defoon mu mel ni ku koy daloowaat ngir di ko fàttali nit ñi déedéet du yam ci loolu day yeesaat peq ndax day doxtalu taxaw lépp lu mu ko jagleel na muy firi ci Sëriñ Tuubaa day gën a ku ci lu dëppook jamono ci jëmmi sëriñ Béthio ci geneen fànn goo xam ne day yeesaat di wanewaat doole sëriñ Touba ca lam ca doon wax ci jëmmam ji ndax day dem te lu taxaw waaye bul defe ni na woon rek noonu lay moome mum mi axakay noonu la koy moome waaye na muy firi koowaatee day gën a dëppook jamono gën a yees itam gën a leeral la ci sëñ Tuubaa wax loolu yi ku ne da ci ciy xamaale moo tax da ciy génnaale itam moo tax tey jii li jëlaat ñetteel bi ñu war a jël nag ab xaytu lil baax yi sukuran xat sadar min faydihi baynal xiyaari yabtadir bayit boobu itam Serigne Touba mi ko wax ni mu ko tuddee rek noonu la béy bi firikoo ndax mbubbum Serigne tubaa moom la Serigne Sall wax ni moom la béy di tudd mooy mbubb moo xam ni Sëñ tubaa rek a ko mën a sol ku dul moom ëpp na la bayit bi itam mboolem li ki Sëñ Touba wax lépp amul ku ko mus a am amul ku ko mus a man amul ku ko mës a xam kenn mësta feeñal itam ci kaw suuf sii lu mel ni loolu njëkk Sëriñ Tuubaa di ko feeñal moo taxit bi mu ko feeñalee da caa wéet kon di wane li mu doon loolu mooy ak jagoom mooy am mbubbam moom Sëriñ Tuubaa moo tax Sëriñ Musaa daa wax naan balance boo ko teg mu fees ko te cam soo ko xiyaas mu yées ko as cam mooy nit nee na mbubb yi moom balance boo jëloon ci yi nga xamoon ci mbir yàlla ak ku ko mënoon a feeñal nag nga bëggoon koo natt ak yëfi Sëñ Tuubaa yii loola du ko mën a natt ndax mbirum Sëñ Tuubaa bi da koy ëpp nee na jëmm joo gisoo nitam koo xam ne ci yëfi yàlla la nga bëggoon koo xayma ak li Sëñ Tuubaa wane nee na kon mu yées ko yées mooy lan mooy da koy du ko jot mooy kookee du jot mbirum Sëñ Tuubaa ma kon loolu da cay wéet mbubb yi nag moo mel boo ci jël rek Sëñ Tuubaa da caa wéet kon xam nga ne Sëriñ Saaliwu bu waxee Sëriñ Béccu lii mu ko wax lu rëyee nii musuñu ko dégg dama wax ne nun ko ni amee nañ sëriñ saliw ak cant ndax am sab sëriñ sëriñ tuba di la ci waxal loolu la ñëpp amul ku ne nag sab sëriñ mën naa baax ci yow ngay ngay wax li nga njortu ne moo ko tax a baax am ndimbal lu toll ni di waxtaan ci sab sëriñ te wax ji yépp nga naan sëriñ saliw moo ni ak Serigne Saliou nee na ko te loo ca wax lu nekk àdduna sépp xamandoo ko xam ne sëriñ Saliou woo ko wax te it moo ko def loolu sunu suñu tawfeex la ndax waxi Serigne wu kenn du ko werante mu tàmbalee nag bayit bi mu tàmbalee ci ab xëytu bu ñëwee ci jéem koo firi doo ko jéem a ñëw ci waxtaane ko kem sunu xam bu dee pirim kaw mi ci kam ni ñu koy xame baat bu ne rek Sëñ Tuubaa da ci wane boppam ndax xam nga ab xëytu mooy firi saxalal naa lil baax yi ñeel aji sax ji saxalal naa yi sax ji bala ngaa ñëw ci sukkooran xas sadar boo taxawoon ci ñaari baat yooyu rek da nga daal di xam ni Serigne Touba rek kay ndax ñaari sax la tudd foofu ñaari sax yi man ak ban la mooy ak saxam moom moom mii saxal ndax ngir nga mën a saxal mbir yow mi nga xam ne yaa koy saxal faw dangay sax ba noppi ndax boo saxul mënoo saxal luy dox sa diggante ak mën a saxal. fa ngay yem ca yëf ya la nga doon saxal fa lay yem kon danga koy wuute saa yoo ko wuutee nag booba saxalatoo ko te baatu baax yi li firi dëgg ci waa demee ci xaarifane billaahi day turu yàlla muy firi aji sax ji mooy lil baax yi jooju sax nag daa bokkut ak yàgg yàgg baax mën naa gudd lool waaye bokkut ak baatub sax sax dañu ne mooy loo xam ni du am fu mu tàmbulee ba noppi du ca yam du am fu mu yam maanaam day njëkk a ñàkk ab tàmbuli mooy commencement ndax dañ ni su fekkee daa am commencement saxut ñu ne lu tax saxul ñu ne avant muy commencer loolaa ko tee sax avant muy commencé amutoon comme daa am commencement njëkk commencement ba mooy ab tàmbali kon amutoon kon njëkk loola amutoon kon saxul ñu daal ni itam bu ñàkkee commencement muy ñàkk am fu mu tàmbalee lu mu yàgg-yàgg te am fu muy yam loola itam saxul ñu ne lu tax saxul ñu ni ba mu jeexee rek loolaa ko tee sax ndax ginnaaw ak jeexam wuute na ko ndax ba jeex amee la ca ginnaawam daf ko wuute loola mu wuute nag daf koy tee sax sëñ tubaa daa waxut lu ndaw moo tax man la mubb yi lu ci sëriñ tubaa wax sëriñ tubaa rek ka ko man moom rekk a ko sañ moom rek a ko mës a wax moom rek a ko mës a def te sax ci gàttal yàllaam ji la ciy leeral yàlla ji biir sax nag bu ko defee kon jëmmi baatub sax gi rek mooy loo xam ni amul fu mu tàmbalee mooy daa amul commencement te it amul fu mu yem loolu boo ko boolee moy tudd baax yi loolu nag tawhid dani kenn dong moo ko am keneen ku dul moom dafa jomm nga man koo am ñu ni kooku kan la ñu ni jëmmi yàlla rek jëmmi yàlla rek moo am ak sax ndax mooy koo xam ni mësta am te amam gi amul fu mu tàmbalee waaye mooy koo xam ni itam du ñàkk am mukk ndax amam gi amul fu mu yam moo tax Sëriñ Tuubaa way ko ne xadiimun mooy ku jiitu ki maalahu bidaaya te jiitoom googi amul ab tàmbali wasoo baqaa in waaye mooy borom sax gi waaye saxam googii maalohoo nihaaya daa amul ab dayoo mooy fu muy yem ki amul fu mu tàmbalee nag amul fu mu yem kookaay ki sax Sëriñ Tubaa daal di ne ku sax koo kii laay saxalal man lii ma koy saxalal ni ngeen xam ni melow wi mu amee ci ak sax ci woowu melaw laa ko amalale loolu mooy man itam lii may jëme ci moom ak saxal la ni ngeen xam ni ni mu ñàkki ak tàmbali rek noonu nii man itam laa ko ñàkke ni mu ñàkke ak yamu itam noonu nii itam la koy ñàkke ah problème daal di jug nag bu réeré yi ndax kat ñaari sax mënta am te Sëriñ Tubaa lu mu wax dëgg la yàlla sunu boroom lu mu wax dëgg la kon mbir mi laaj xam-xam ndax yàlla boo demee ci alxuraan saa yu wax sa xam gi lépp lay tuxal bàyyi fi boppam loolu moo am ci téere bi yépp muy baatu baqaawu jëm boppam saa yu koy wax rek noonu lay def mooy day dindi lépp lu ci nekk mu wane ni am na fu mu commencé te lu mu fi yàgg-yàgg day am fu mu yem man rekk amuk sax mooy ñàkk a tàmbali ak ñàkk a jeex lu man alayha faanin lu mu ca teg baatu baqaa mooy wa yabqaa da koo conjugué ci siixatul mudaariha waaye baat bi mooy baqaa wa yabqaa wajhu rabbika sil jalali wal ikram lepp lu meuna am rek am lu meuna a doon loola luy jeex la tayit muy am boba bama ma ko amalagut booba amagutoon ba bama ko feeñalagut feeñutoon te lépp lu ma feeñal lu tam dana am fu mako yamale way jëmmi sax ji nak sama jëmm jar ko ko am amul commencement ta du yok du amul fu muy yem itam kullu sayin haalikun illaa wajhahu lahul xokmu wa ilayhi turjaxuun lépp lu mën a am rek lu fiy jug la ba mu des sama jëmm ji man yàlla boroom xam-xam yi daal di gis ne kullu sayin moom dara génnu ci ku dul yàlla rek yaa ngi ci kon bu Sëriñ Tubaa nee ni fi yàllay saxe noonu laa fi saxe ah ñu dugal beneen laaj maa ngi ci ab xëytu lil baax yi ji rek maa ngi saxalal yàlla mi fi sax nga xam ne ni muy saxee ni laa koy saxalale kon ñaari sax taxaw na te benn sax a mën a am léegi nag ñu indi benn laaj ñu ne xanaa kon bokk dafa bokk ci ñi nga xam ni dañuy yéex a faatu waaye dem nañ ba gis ne foofa sax sax amu fa ndax am na ñoo xam ni ba tey faatoo gunu ñoom nag dañ fee yàgg maanaam dañoo gudd fan rek waaye amuñu ak sax li tax amuñu ak sax balaa yàllaa tukkil àddina buy wal buftu bi alxuraan dana ñaari yoon lañ koy wal yow ma yén faxo fi sóori fa dukkataa dakkatan waaxidatan fa yow ma isin waqaxatil waaqixatu wan saqati samaau fahiya yawma isin waahiya danañ ko njëkk a wal wal goo xam ni mooy mokkal li ci àddina ginnaaw wal googa ci la ñuy tukkil àddina waaye njëkk ñuy ñëw ca ñaari wal ya képp koo xam ni dese woon nga ak dund yàlla dana la rey loo fi yàgg-yàgg nag ba noppi doo ko def wal ga ñu ni lu tax ñu ne bu defewut noonu loola dafay sax te sax kenn na ko yàlloo muy yàlla moo tax juróom benn jëmm yii ñoom foofu la ñuy xaar mooy dañuy xaar bala ñoo wal buftu ba yàlla rey leen ñoom nag ñoo gën a gudd fan ci àddina ndax dañuy ñooy mujj a dee juróom benn yooyu bokkut ak li wax juróom benn yooyu kana kana ñaar ñi ay yonanti lanu wala ñett ñi sax ñett ñi ay yonent lanu ñett ñi ci def duñ ay yonent ñett ñi ci ay yonent mooy yonent yàlla Idrissa kooka faatoogul waaye day faatu de moom ci ñiy faatu njëkk ñu wal buftu bi la bokk loo tax alxuraan ni waskut fil kitaabi Idrissa innahu kaana siddiqan nabiyyan wa rafaxnaahu makaanan xaliyan nee na faataguma ko dama yëkkati jëmmam daal di koy denc ca ñeenteelu asamaan wala asamaan sam ko féetale muy xaar loola moom beneen yonent ba Seydina Xiisa la moom it faatoogul moom alxuraan a ko waxit waaye dana faatu bala ñoo wal bufti ba لولا القران وما قتلوه وما صلبوه ولكن سبح لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من هم نل اتباع الظن وما قتله يقينا بل رفعه الله اليه وكان له حسن حكيما مومي يالا كو يكتي يوبكو تي نيارل اسمان wala ba mu ko ca féetalee di ko xaaral dig boobu ñetteelu bi yonent bi mooy Seydina Iliyaasa alxuraan wax na ko wa inna Iliyaasa la minal mursalina jële nañ ci Anas ibnu Malik kenn la woon ke saxaaba ya daanañ ko woye xaadimu rasuul moo tax xaadima xaddiim du benn waaye loola du wax ji tey Anas ibnu Malik moom mii moo nu nettali nanu ànd ak yonent bi ñuy dox ci xuru Makka wax am yooyu yu ne diina la ñuy dem ba yàgg ñu daal di romb aw xur bin rombee xur wi ñoo ngi fay dégg kàddu gu neex yonent bi ne ko demal xool kooka ku mu nee naa ba mu demee ba dugg si ci xunt wi fekk na fa génn góor gu rafet goo xam ne ma nga yor benn sikkim sikkim mooy li li sikkin rek mooy kawaru sikkin waaye kawaru sikkin bi dafa gudd gudd goo xam ni nee na li tëdd ci suuf rek bu ma ko xaymaa war naa mat ñetti téeméeri mètre mooy trois cent mètres ngir guddaay bi nee na ku rafeta noonu it mosuma ko gis nee na bi ma dugg see ba séen ko mu ne ma asalaamu alayka yaa rasulu rasulullahi maa ngi lay nuyu yow ndawal ndawal yonent bi nee na ma ne ko waaw yow noo xamee ni moo ma yónni mu ne ko kooku la yónni day ñun ñëpp xam na nañu ko te ñun ñii ñëpp ci dara jaam la ñuy dox damaa bëgg nga ñaanal ma ko ma mën a gisee ak moom anas nee na ma dellu wax ak loolu yonent bi mu nangul ko ko neen daal di ñëw dajeeg moom neen keroog bi mu dajee yonent yàlla Iliyaasa yonent yàlla Iliyaasa mbég ma mu wane neen mbég mu rëy la Anas ibnu Malik neen ca ba gis naa ñuy saafante ba yàgg lu mel ni benn palaat bu def benn ñam bu jóge asamaan Seydina Jibril la ko yanu daal koy indi ki seen diggante ñoom ñaar nee na woo nañ ma ca sax ma barkeelu ci tuuti war maa leen bàyyi ñu séq ko ñoom ñaar nee na yonent yàlla Iliyaasa ni sant na yàlla lool ci bokk ak yonent bi ñam wii ndax moom weer wu nekk benn yoon la ciy lekk te Jibriil la ko koy indil waaye cantu tayam mooy bokk ak yonent bi te diggante Iliyaasa ak yonent bi sallallahu alayhi ay siècle yu baree bari la daanaka ay junni at la te kon waxoon na ni mel na ni ku faatu te Seydina Iliyaasa kon yonent bi gisaat na ko Anas ibnu Malik gis ko moo wéral ni moom it faatoogul waaye dana faatu ji itam kon ñetti yonent yooyu la Idrisa Xiisa Seydina Iliyaasa ñi ki des duñ yonent mooy Seydina Xadir iblis ak jafar khadir mom xam ngeen ko moy ka yalla wala woon ak Moussa si ci mañ mahal bahri ni euh, sayidin iblis tam loolu mom mom ñep xam nañ ko yalla ko may muy dundu ba bal ñu wal butt ba ñu dog euh, bu jaxfar nak nañ aw turam jaxfar ibnu abi Talibin, kan la ci sahaba ya mom ak Seydina Aliyu ño bok nday ak baay Aliyu moy ki Sëñ Tuubaa way ci jess buba wa fihi mo jalil wasan abul husayn wal hasan babul hulum wal xatan abu siraf lan jumi sayiduna al mukarram mukarramu xalliyuhul muhasamu murjil hidal xasam samu mahil asawal wajami mom ak jahfar ño bok lépp jaxfar moom mii keroog ba yonent bi yable Éthiopie ngir booba lislaam ji tar na moo jiite woon jullit ñi jaxfar moom mii li tax faatoo gi itam la ko waral mooy dafa am benn xare boo xam ne moom la yonent bi jox drapeau lislaam bi mu jiite xare bi mu yor ko ci loxo ndeyjooram mais droit daal di dugg ci biir xare bi sëñ Tuubaa nee na ñoom dañ daan njëkkante dee tanaasahul mawta mahaa wal kullu minhum sajuhaa yabqi liqaa aw yusrahaa lahum bi maahil xumami bi mu xuusee ci biir xare bi ñu dagg loxo ndeyjoor bi mu ni lu ma yonent bi dénk ñàkk loxo ndeyjoor duma ko tee yor jàllale ko ci loxo càmmooñam xuusaat ci xare bi ñu daggaat loxo càmmoñ bi mu ni lu ma yonent bi dénk ñàkk ñaari loxo duma ko tee yor daat koy ŋànk ci gémminam xuusaat ci biir xare bi ñu tàggale baat bi ak bob bi waaye pësséef ba tax na bopp baa nga ŋànk drapeau ba di wax la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa Yalla dan ne jibril jugal gaaw nga demal ma ci ruhu jahfar ne ko bég na ci mom mbég mu tol ni na wax lu mu bëgg ma defal ko ko man yalla bi na Jibril ñewé wax ak ruhu jahfar ruhu ga tontu ko ne ko waxal ma sama borom bëgguma ludul delu ci yaramu jahfar continuer xex bi ma don def bi ko jibril waxee la ko yàlla jox aaya bii kallaa innaha kalimatun huwa xaailuha wa min waraihim barsaxun ilaa yawmi yub'asuuna kenn du dee di dekki ne ko waaye dinaa ko defal yaramu malaayika boole ko ak malaayika yi mu ànd ak ñoom mission yi bu ko defee du faatu gun fii ak malaaka yi faatu wunu looloo waral jaxfar ba fii mu ne ma nga ànd ak malaaka ya di dox ay mission yonent bi daan toog ci madinatu munawwara ba yàgg mu téen rek ne waxaaleyka salaam yaa jaxfar ne saxaaba yi fay leen nuyoo jaxfar a fi jaar léegi ànd ak malaaka yi doxi mission moo leen di nuyu kon juróom benn yii ñoom juróom benn jëmm lanu kenn faatoo gu ci waaye dañ fee yàgg rek waaye amuñu ak sax faaw dañuy faatu bala ñowal buftu ba malaak yépp dañuy faatu ba ci xasara yi sax day faatu mooy mujj faatu moom mooy kii rey nit ñi muy malakal mawti mooy rey ñépp bu noppee rey boppam kon lu ma bëgg indi foofu mooy ak sax yàlla rekk a ko am mënees na fi am ak yàgg comme ñoo ñii ma wax waaye loo fi yàgg yàgg doo fi sax yàlla rekk a fi sax kon bi Sëriñ Tubaa nee moom nag daa amuk sax gi yàlla am ba tax mu di ko saxalal li muy bëgg a wax àggale ci bayit bi ñu ne ko nag leeral na ko nag mu ne tursi xanil mawti baqaa ullaahi abqaaniyallaahu li wajhillaahi ab yonent mësu koo wax ab wàll yu du ko wax kenn musu ko wax ci àddina noo tax mbubba mi da cee wéet mu daldi wax ni kon man li ma faatu ba tax maa amuk sax mooy saxuk yàlla gi li fii yàllaa ngi fi maa ngi fi ndax dama ne ci biir yàlla man loolu nag ko dégg séeréel mooy maa yàlla rek bu ko defee kon wane na ne moo yàlla rek maa yàlla nag ndax saxuk yàlla gi ak sama sax gi lenn la ndax Sëñ Tuubaa néewul damaa mayuk sax sax fi ma sax fi déedéet dani li ko fi saxal moo ma fi saxal li fi yëg mi ngi fi rek maa ngi fi man daal li ma fiy jële mooy li fiy jële yàlla te yàlla du fi jub kon loolu rek mu tàmbalee bayit bi loolu ku dul sëriñ tubaa mosoo koo wax mosoo caa yegg mosoo feeñal lu ni mel mu tàmbalee foofu nag moo tax man leen mbubb yii lii rek lañuy war di waxtaane ndax sëriñ Saaliw lii mu def ku dul moom sañu ko mënu ko te loolu àdduna sépp xam na ko te ku xam dara ci sëriñ tubaa danga xam loolu yow da nga xamni seigne sallu rek ko man waye nun eh seigne beccu rek lañ ko jaglel nak loolu la yalla def muni kon saxalal na ko mom mi fi sax nak sax gi mu am moy gi ma am Lolo tax ma man ko saxalal legi nak loko saxalal kon tambali gi rek wane na ak wetam motam mu tekke sukuram ak cant gan mu ne xat sadar cant goo xam ne xat sa dëgg dëgg dëgg boo gisee mu tàmbalee baatul xat mooy li muy bëgg a wax daa bokkut ak cant yi nga xamoon ndax fa muy waxee ak fa mu fa mu aj yëf ya daa bokkut ak li téere yi bind moo tax wax naa leen ni xanaa xamoo ni mbubb yii bokkut ak li téere yi wax bokkut ak li nga xam ci diine bokkut ak li nga xam ci mbiri lislaam yi lii yëfi Sëñ la moo tax mbubbum Sëñ Tuubaa la tudd moo tax njëkk muy wax sax xeetu cant googu dafa indi baatub xat xat xat nag waxoon naa leen ni juróomi àtte la am ci arab ñi jàng xam na ne xatub tanqiix la ak xatub liil ak xatub taqrib akatuk xatub akatuk tawqi xatub tahqiq mom bat bi mom la bu ak fi madin, xatub tahqiq la moy khat go xamni day deggal wax di ko bam tol mu ni ngéeñ nga xam day melni kuni billahi lolo moy khat go ande ak fihlu madin bu la waxe khatuk taqlil nak moy lu melni arab ni xat yoo judul baqi la ab nay néew na lu muy maye bu ñu jiitalee xat foofu xam nga ni ab nay moom du bari lu muy maye moo tax xat yoo judul baqi la loolu lañ tuddee xatu taqlil boo déggee na xatu taksiir mooy xat yoo judul jawaadu ab tabkat bari na lu muy maye kon loolu xatu taksiir la mooy xat guy baril boo déggee nag ñu wax xatuk tawqi mooy xat goo xam ni jamono ji koy wax la nga cay wax ca jooja jamono rek yaa nga ca mu ngi mel ni nga ni xat ajlisu maa ngi nii di toog kon jamono ji ngay wax loolu jamono jooju yaa ngi toog mooy yaa ngi dugg ca mbir ma loolu mbirum grammaire la waaye xat-xat gi rek laa bëggoon indi mooy xatu tahqiq Sëñ Tuubaa dana bu werante ni lii may wax waxuma waxi aal ndax gaa yi aal daan leen dal aal mooy lu fi romb jàll lu mel ni melax rek gaa yi yàlla ya daa gis ko mos a wax dara bu reesee léegi ne waxuma ko woon baa waxuma ko woon nii Sëñ Tuubaa waxut loolu moom li muy wax maqaama la mooy fu mu taxaw la xat sabar cant gii ma ko yàllale di ko ko saxalal maa ngi ko jële maa ngi ko doge xat sabar mooy gongiku baatu wolof bi gongiku lay firi gongiku nag mooy lu bàyyikoo koo foo gongi koo mooy yow foo bàyyikoo koo yow foo jóge moo tax wolof bi gongiku lay wax waaye boo ko wa walafal ba toll ak su juga walaf nun mooy lu jóge ci mbir lu bàyyi ko ci dara moom lañ wax masdar mu ne xat sadar googa cant ma nga jóge min fay di ñii ca bëbbug leeram ga foofa nag ñaari sew sew ngi ci yu ma bëgg nu diglu ko bu baax ndax booba sëñ bi bu njëkk bi jotoon naa wax ma leeralaat ko mooy jëmmi ak cant waxoon naa leen ni ñaari xeet la mooy as asukkurul xalq ak sukkurul xaalixu sukkurul xalq mooy cantuk mbindéef yi sukkurul xaalixu mooy cantuk borom mbindéef yi cantuk mbindéef yi bokkut ak cantuk borom mbindéef yi cantuk mbindéef yi mooy cantuk ibaada maanaam cantuk jaamu yàlla cantuk borom mbindéef yi nag moom du ibaada daa bokk ci yàlla ak yàlla ji sifatun min sifatillah cantuk mbindéef yi xeeti jaamu yàlla yi ni def yépp moo ci féete kaw asukuru ibaadatun ak jaamu yàlla la minal ibaadaati gu bokk ci xeeti jaamu yàlla yi yàllaay wax kat ak akramuhaa moo ca gën a tedd wa asadduhaa te moo ca gën a jafe kon ibaadaat googu moo bokk ci ibaadaat yi gën caa màgg gën caa tedd gën caa jafe ruuxul bayaan nii ne yemut ci loolu sax waa xeeti jaamu yàlla yépp làq na leen ci biiram muy ak cant gi nu xam loolu nag ak jaamu yàlla la te jaamu yàlla ab jaama koy def mooy jaamub yàlla jaamub yàlla mooy jaamu yàlla waaye yàlla moom du jaamu kenn ndax moomoom jaam ñi looloo tax cant gi jaam ñiy def ñaari xaaj la cantu sariixa ak cantu aqiiqa cantu sariixa gi mooy ni nga xamee ni ndax sareexa moom lu waa la mooy loo xam dañ koo tëral daan nee na nii lañ koy defee moo tax baatu wolof bi sax aw yoon lay firi mooy luñ tëral ci aw yoon nga xam ne ku ko bëgg a def dangay jaar ca yoon wa ngir def ko boo teggee yoon wa la ngay def du tudd ak cant mën naa tudd la neen nag loolu mooy sareexa yoon wa nag sëriñ Saliou leeraloon na ko sëriñ Béthio la waxoon ni ko xeeti jaamu yàlla yépp ak cant ci féete kaw mu laaj ko ni ko mbàkke lan mooy ak cant mu ne ko sant bernde bernde ren di kon tuur dareet togg ko ñam bu bari te neex di ko séddale te doo ci am xeej gi ak siin ba noppi da ngay bég yow mi koy def ba noppi jubloo bégle te boo noppee taxaw ca mboolem wax la la yàlla defal ba tax nga di ko sant nga xam ne loolooy sari xaj yi mooy yoon wi mooy mooy ni mu ko tërale nga xam ne ku mës a bëgg a sant faw foofu ngay jaar loolu mooy cantuk sari xaj yi mooy li nga xam dañ ko tëral ca aw yoon rek baatub sari xaj yi maa ngi ci jublu luwaa bi mooy yoon wi bu dee aqiiqa ji nag mooy dawaamu sukkuri gii mënu ci defal ndax loo xam ni ngir nga defoon ko nii lañ ko tëralee buñ demee ba man la caa defal dawaamu sukkuri nga xam ni yow man nga caa sax te doo jaar ci yoon wii nga xam ne mën ngaa tëddi nelaw nelaw ya di firi ku mel ni ku rendi bernde di ko joxe di bég tey bégle boole ko kàddu cantam nga xam ne nelaw yi da koy wecci boo toogee da koy wecci booy dox da koy wecci booy tëdd da koy wecci loolu mbirum baatin la mooy kon aqiiqa loolu ab sañ-sañ la kon ñaari xeeti cant yooyu moo am bu ko defee ñaari yi nag muy gu sariixa gi ak gu aqiiqa gi loolu li muy rëy rëy ci ibaada gi rek la bokk même boo yoree dawaamu sukkuri itam cant googu nga sax ak jaamu yàlla la gu féete kaw ci xeeti jaamu yàlla yi nga sax ci di def moo tax cant googu ndol leen da cay jóge mooy da ngay yokk kan moo soxla yokk ab jaam ndax daa matadi te ku matadi ku ne da ngaa tële te ku tële ku da ngay soxla kàttan di soxlay xéewal di soxlay njariñ moo tax dawaamu sukkuri gi sax ibaada la nekki noonu it lu dul dawaamu sukkuri gi ibaada la mooy xeetu jaamu yàlla googu kon kon cant gu njëkk gi mooy sukkurul xalqi sukkurul xaalixi nag foofa la Sëñ Tuubaa wax ndax dañuy sama cant gi may saxalal yàlla maa ngi ko jële ca cantam nga moom yàlla yàlla la cantam nga melo la ci melow yàlla yi ba yàlla yàlla rek naka jëkk la sax ci cant te fii ak mi ngi doon yàlla day sax ci di sant boppam waaye beneen sew sew bi ci nekk mooy faydullaahi muy bëbbaluk yàlla bi ko boroom xam-xam yi firi xaarifoon yi danni ann asma almahaani yax nii xataa ullaahi ونحمه وحبة الله للعباد dañ ne mooy turu yàlla yoo woo xam ni nee na turu max naa la maanaam tur la woo xam ni dafa am wetam gog lam fay manifester loola yërmande la ci jaam ñi fa lay maye jaam ñi xéewal fa la leen di maye njariñ fa fale leen di maye yim leen di jox turam li ne wax xattaa u muy joxe waa kon bi ak wahaabu muy maye waa kon bi ak naxiimu muy xéewalaa kon bi ak latiifu muy ki ñeewantu jaam yi nga xam ne turi yërmande la maanaam wetu jamaalam dani foofu faydu loolu lay manifester kon foofu lan leerale nii yàlla ci boppam cant gi mu saxoo di ko sant boppam te loolu di melo ci moom nga xam ni sunu boroom turu saakiru tur la ci moom ismun min asmaillah jëmmi ak cant yi itam melo la ci moom sifatun min sifatillah nee na cant googu nag mu saxal ci boppam wetam nga nuy wax jamaal mooy sant boppam ci wetam nga ni wax jalaal nga xam ni jamaaluk yàlla ci la yàllay sante boppam ci jalaalam gi nga xam ni kon wetu jalaalam ca lay nangoo cant gi wetu jamaalam itam ca lay jëfe cant gi nga xam ne liy cant-cant gi ak li muy sant lenn lanu waaye ay wet la daldi ne looloo waral wet googi di fay fayduw yi cantam googu muy def mënta tudd cantu jaamu yàlla ñu ne kon nu muy tudd ñu ni cantu cofeel marché nga xamee ne seen becco sëñ Saliou la mu ko waxoon rek a am defoo waxoo jooju moo am loo def maa ko def loo wax maa ko wax ndax li tax mu ni def naa 17 avril bii mu cantu cofeel loolu rek a mën a ne ndax moom bu ma yeggalee li may wax mooy dama toll ci di la ko waxee sëriñ Tuubaa jim boppam bi muy feeñal mbubb mi na mu ko firi woon ci boppam waaye bi mu ko ko moomalee itam yemul ci firi ko noonu rek ci moom waaye da ko actualisé waat ba mu gën a dëppook jamono gën a yees itam faaw ngi ci yegg itam mu daal di wax ni cantu yàlla gi kon jamaalam ci lay sante boppam jalaalam ci lay nangoo ak cantam te jamaalam doon def cant la tudd waaye cofeel rekk a ko laal te suñ borom daa sopp boppam ndax mooy muriidu boroom nammeel gi loola tax mu bon iraadatu mu am coobare bu ko defee kon foofu lañ leeral loolu léegi nag mu daan ne googu cant nag nga xam ne sunu boroom moo ca wéetaloon boppam te kenn nu mu su ko caa fekk te kenn du ko ca fekk muy sant boppam nag cant ga weesu jaamu yàlla booba jaamu yàlla xewut yàlla sàkk jaam ñi jamaalam di ko defal jalaalam te lépp lenn Sëñ Tuubaa ne foofee cant googee moom laa feeñal man ci sama jëm ji ci adina si jagleel ko ko mom yalla min faydihi motax tax cantuk sëriñ tubaa daa bokkut ak cantuk mbindéef cantuk sëriñ tubaa cantuk yalla la ci yalla lola tax muniko won ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa hasibi sultanika yow buur bi joxna la cant gog peese na ko ba mu yàlloo ak sa yu jëm ji ak sa màggaayu nguur gi sant yalla ni yalla tollu nak yalla do nga ko mënal boppam waaye mbindeef daa loomaante ak yalla seigne Saali wax nañu ko jëfi yalla ak jëfi mindeef dafa moy jotante wut kon mbindeef moom lottu na ci sant yàlla na mu yàlla ci yàlla da koy defe ni mu yàlla ci moom rekk ak ni mu ko manee ak ni mu ko xamee waaye mënta jot yàlla waaye sëñ Tuubaa bu nee man ni yàlla tollu noonu laa ko sante ma nga lay xamal ni loola yàlla moo ko mënal boppam ndax laa yaxrifullaaha illallaaha moo tax cantuk sëñ tubaa di bokk ci cantuk mbindéef yi cantuk sëriñ tubaa nag mu daal di koy waxal boppam xam nga ñépp a xam ni màggal gi lay defuk cantam loolu àdduna sépp xam na ko moo tax muy wax ni sama cant gi bisub sëriñ tubaa bi kon diglu leen li ma bëgg a wax kon boobu bayit moo firi màggal gi ci loolu la mu xamee woon ni màggal gii nga xam ne jëfi Serigne tubaa la cantuk yàlla la ci yàlla yàlla juy sant boppam la ca lañ xame woon ni itam moo taxatoon moo taxitam itam màggal gi dara tullul ni ndax Serigne Touba mi ko moom moo tullul ni kenn daa ëpp ñépp kon noo boobu bayit moo ko wéetal muy mbubbam bu kenn mësta am te kenn dutu ko am moo tax mu waxaloon boppam ni askuruhu sukura muhibbin lam yura, xattu siwaahu wa siwaahu lan yura sama cantik bopp gii ma feeñal ci àddina jëf juni tollu toll mësu fee feeñ ndax kenn ko fi sante daraja yàlla mësu fee am yónnante yi sax dañu naan soñ ci cantuk ibaada te daawuñu ko man xam nga ko mënul cantuk ibaada nag cantuk yàlla nga waxuñu ko moom mu ni li ma fi indi musu fi am bi ma koy indi itam amanduwu feeg lu toll ni moom ginnaaw ba ma ko indee lu ni toll dul fi amaat ci lañ xamee woon ni dara ëpput màggal loola sëñ Tuubaa daa bokk ci mbubbam yi mu wéet ba tax xiiwali àjjana la muy rëy rëy doole ji ci màggal numéro moroomam na yàlla ëpp àjjana moo tax mu waxoon ni dix bi safa day dolli xéwil àjjana ya la tax loolu mën a ne mooy la àjjanay neex-neex yalla ko gën a neex bi te moom màggal gi cantuk yàlla kon yëfi yàlla léegi nag loolu mooy mbub mi sëñ Tuubaa wéet ci nga xam ne nii ma la ko waxee rek da ngay daal xam ci sensé ne mbubbum sëñ Tuubaa moom lim ci wax lépp moom dong la ñeel ak sax moom la ñeel sante cantuk yàlla gi moom la ñeel ku dul moo mënul ko mu ni baynal xiyaari yëpp ta diir googu cant nag cëy ñi ma ci nar boole ñoo ñaay tànnee fi nag mooy ñi ma ci nar woo ñu fekk si ma ci ñooñu bu kenn defe ni yaa ciy bëgg dugg rek dugg ci déedéet maay tànn ñi ma ciy dugal daane ñoo ña ma ciy dugal nag te tànn leen boole leen ci ku la ca gën a xam moo la cay gën a faralu moo tax ma ne dañ koy njëkkante njëkkante gi kat mooy dimension xam-xam bi mu ne ku la ko gën a xam rek moo la cay gën a buuxante gën la caa faralu dàq la caa jëf moo tax it moo la cay raw nga xam ni kon looloo tax Euh, ndigalam loolu kenn ku ne kem na nga xamee saw xel noonu la ci toll ku ne nag na ci saw xel toll sag raw noonu la mel moo tax Sëriñ Saalu ne woon ku la ci raw rek raw na la moo tax bind bi kon wéetug Sëriñ Tuubaa gi ci mbubb mi léegi leer na léegi nag bi mu ko jëlee moom Sëriñ Saaliwu ba ni Sëriñ Becco lii mbubbum Sëriñ Tuubaa la jagleel na la ko yow ñaar lay firi walla danga ci jànge ñaar bu njëkk bi mooy la sëñ Tuubaa waxoon foofu da koy ñeel fii mooy bis bee day daal di doonaat bisam ndax li ko waral mooy mbubb mi nee naa la kenn du ko jagoo te wuuteeg moom na soo wuuteeg moom day dàqi ba ndax dañi kenn du ko ci fekk kon boo ko ci fekkee day firi ne da ngay moom di firi it ne day yow lu ko moy rek xam-xam dàq ko moo tax Sëñ Saaliw bàyyiwul benn ruq bu nit mën a jaar ba sëkk sàkk ba xam moo tax diggante na ba ba ne ko yaay man may yow jàpp ci yow dëgg dëgg jàpp ci man képp ku ko def dana ma noppal te jii ëllëg gënu jëm te dana def lu ma neex te Sëñ Saaliw way Sëriñ Tubaa loola doyut mu teg mu gën koo firi nag ci walla far ndax daf ni ko def naa samak màggal muy sak màggal nga xam ni màggalam moom sëñ Saliou xam nga ni mooy màggalu Sëriñ Tubaa kon su ko moomalee ma ko njëkk a wan ni la la mbubb ma doon firi ca cosaan yow noonu nga ko njëkk daloo waaye dama leen a waxoon ni itam mbubb yi du yem rek ci jagoo gi ci melawa woon déedéet day gën a yeesaat li ci dolli ko waat yees ci dëppook jamono mooy na ñëpp xam ni cantug 17 avril bii mooy manifestation bu bees bi maa ngi lay yëgal ni cantuk yàlla gi la ndax li tax mooy moom mii di Sëriñ Béthio bis bi bisam la cant gi ak cantam la te sëriñ saaliwu mii sëriñ tubaa da ko def muy jëmmam kon bam mu xasee doon jëmmi sëriñ bi mënatut a sant cant gudul cantuk sëriñ bi te cantuk sëriñ bi mënta doon cantuk mbindéef yi cantuk yàlla gi rek la mën a doon looloo waral bisub di salafil bii di cantuk boppam gii weesu na cantuk sariixa weesu na cantuk ibaada cantuk xaalixu la muy cant ga nga xam ni yàllaa nga ko doon sant boppam ci jamaalam di ko jagleel jalaalam waaye xoolal ni mu firi ko rek sëriñ saaliwu ñëw feeñal wetuk jalaal ci jëmmam feeñal wetuk jamaal ci seen becco sëriñ becco jël cant gi di ko ko joyal te ba yàlla lay sant boppam ci jamaalam lay sant jalaalam moo tax jë jërëjëf jën jërëjëf jën jërëjëf loolu kon sëriñ Saliou ko fiil boppam moom kon moo tax joyal gi mu ko koy joyal bu ma nee la wuute wut ak joyal gam ko doon joyal boppam mooy xam na ni jamaal jam ja ci la doon joyale boppam ak cantam moom jalaalam ji kon bu ñëwee fii ci àddina mu feeñal fee jalaalam feeñal fii jamaalam jamaal ji di ko joyal cant gi te waxaloon na ko di bam nee cant nedes, bu kenn des ci sama kër gi te demoo ca bu ma kenn taafantaloo nag ndax kat toog ci barab ñu di la sant ñu naan man lañuy sant daa yombut kon moom xam na ni moom moom lañuy sant daane lii tax kon waaye kon maa fay njëkk kon kon moom ci jalaalam xam na ni moom moom sant ji moo tax ba mu koy sant si ca daaree got ba mu ne ko lii nga def loo ci jublu dana ko mbàkke sant si la waaye téewul dafa ndaari xam ni mooma moo tax mu ne ko yàlla bég na yónnente bi bég na sëriñ Tuubaa bég na moo tax cant jii di 17 avril day weesu dimension cant yii yépp nag ndax mbubb mii mu ko solal moo ko yóbbu foofu cantuk yàlla gi la moo tax baynal xiyaar yépp taddiir gi da ciy firikuwaat mooy lan bim nu ci woowee moom nekkat may sant waaye woo naa leen ci yéen ñépp nag ngeen ñëw santale ma sëriñ Saliou foofe itam nanu daal di xam ni ñi ciy wuyu si ay tànneef lanu da leen di tànn ngir boole leen ci ndax loolu kenn amul kàttan baa man-man bu la ci boolee sa bopp ndax sag loxtu dadul jot matut loolu yërmandeem ci lay yootoo ñi muy tànn di leen ci dugal kenn ku ne ci nun nag kem fekke sa xam-xam tollu noona nga cay sóoboo noona nga cay xeloo noona nga cay rawe, moo tax ku li ci gën a yeewu te xoolal mu teg ca ni def naa ko bisub cofeel loolu lépp siñ saali koy wax loo ndax cantu jamaal ga ba ko ko jalaal laajee lu nga di ko def te yow ma bokk ak yow ngay man may yow dana ko sopp la ko tax cantu cofeel rek la mën doon moo kenn ku ne ci nun faaw nga yeesat ci xam-xam kenn ku ne ci nun itam kem ni nga koy xamee non la ko sag talibé di jéegoo non nga cey xeloo non nga cey rawé motax mo gëna gaaw kenn ku ne ci nun kon war nga ci amaat yeesat gu yees go xamni ne sa pësséef lay yeewaat dal di yeewaat ci fel nga gën ko jëf te xam ni ndimbal la lun la tànn boole la ci waaye jomboon na la sunu tawféex la nag sëriñ Saaliw woo ko wax moo ko def moo ne ko mbubbum sëriñ Tubaa la moo ne koy jagleel nan la ko moo ne ko dee ko takk mu ne fàng moo tax moo ko waxtaan lu te jëfama moo tax kon lii moo ci doon li nga xam ni tey dama ne woon faaw ñu génn ci lii yalla nga fi yàgg lool te gën a